monsieur Niang bonjour. bonjour monsieur. Euh, euh, ñu ngi ngi lay donc pour tënk rek comme ni la ko Seydina waxee sànq. waaw donc euh, jot nañ xibaar comme quoi que ni dañ la nar porte plainte par rapport ak yëgle bi nga defoon ci matériel public bi nga xamante dañ koy jaay structure sanitaire du privé yi. Mm-hmm. ñu bëggoon am sa réaction par rapport à cette plainte la félicité. dañuy ñaan def nañu pexe ba oxygène bi wàcce na. ah leen di félicité nañu ñu a jóg ci seen bopp ñu a jóg ci dëkk bi affaire médicale dafa am traçabilité boo xam ne ñu ko ruñ ko jaay buñ koy jaay ci dëkk accuser bañ a accuser c'est que xam ne waru fa toll. loolu mu ngi noonu mais man li ma am na centre bu fi nekk fii bu tudd Kër loo soxla médicament tey Sénégal mën nga ko fa matériel boo soxla Sénégal. naa ne si yàlla moo xam li mu di fi koy jël donc mu ngi noonu kooku moom ku ko ku ko bëgg a dindi Sénégal euh, maa ngi taxaw di la xaar te dama ciy kontaan sax parce que bu ñu ko mënee dindi moom médical bi parce que médical bi comme sama domaine la trente six ans maa ngi di dugal sama li ma xam yëpp de hmm, ko suñu yàlla mën a dimbale ba loolu dañ ci moom alhamdulilah bu fekkee ci plainte lay jaar ci man moo moom tax mo deñ man maa ngi maa ngi pare taxaw xaar. ok kon maanaam mën nañ jàpp ni ba tey jotagoo benn notification bu jëm ci plainte googu nga xam ne adressé nañ la ko. jotagoo benn notification dernier membre du ministère bi moo xam mu ngi ne motagul deux heures de temps. Mhm. mooy le directeur des établissements privés du du Sénégal de santé privée. Mhm. mais waxtaan nañu leneen lu dul ay plainte. lu dul ay plainte te bi ñu sax maa ngi def ci benn réunion avec Ousmane Dia ma leen di félicité ñu oxygène mm. bi tey ba bi wàññeeku de six mille franc trois mille franc nañu continuer noonu na produit yu Sénégal yoo xam ne léegi boo ko tegee ci table da nga ko fa fekkaat pendant dix ans parce que produit gratuit amul ki foo fenn foo ko mën a jaay kooku mooy produit tuberculose yi nga xam ne Norvège ñu ngi ñu koy may boo ko tegee fi ci table mën nga ñëw vingt quatre heures après di nga ko fekkaat foofu parce que kenn mënu ko jaay kenn du ko sox loolu tamit état bi foofu mu gën a góorgóorluwaat ci loolu gën a mën produit yi nit a a faju trafic bi mën a arrêté fi ñu tëjee boo nu ko mayee rek situation bi délicate na lan nga jàpp ni ci ay recommandation wala ci ay xalaat dina mën a tax mbir yi gën a mën a am tawféex. o situation fi mu délicate vraiment ministère du war na war xalaat leneen lu dul di di di xeex ak ay docteur am hmm, ñun ñëpp ñu ngi ci biir man maa ngi nii léegi hôpital de campagne laa loué dix millions. pour man ci def dama dama sol sol de sol na sept place laa amoon ma dem ba vingt place demaat ba trente cinq place de ah fan yi laa loué benn bâche ki quelconque bâche dix millions pour mën a recevoir ay ni te nitu Sénégal yëpp laay recevoir nitu Sénégal yëpp laay recevoir kooku nag bu ma tollee foofu euh, defe naa du plainte la ñu war a teg sama kaw jërëjëf docteur